ak gars yi ngi leen di nuyu di leen jaar yéen ñiy suivre Rmo Sport ñu war a ñëwoon ci benn vidéo def benn résumé bu ndaw ndaw ci match Sénégal bi nga xam ne amoon na ci diggante ak Israël Israël mu nekk match boo xam ne match métti la Israël moo njëkkam Sénégal 1 Sénégal daw ba sonn dogo fay mu nek 1-1 malgré premier bita beeg max bi yep senegal moko duggal waye goyene goné senegal yi de gis nañu dañu manque efficacité mo tee ñu mën a max bi ci premier bita bi dañ ñu ci max bi gën ka toj mais la ta lolu ñi gën ci page bi gën abonné da ngay bass ko notification bi pour nga show vidéo au taral fi ci sport sama gaay yi gone sénégal yi wacc nañ ñi ngi leni di tagal ka tatagal di kontaan ci ñom di bëkk ci ñom ndax tax waye bu rafet ba nga xamné ne nañ ko ci coupe du monde bi am ci argentine mu nek coupe du monde bo xamné ne coupe du monde metti la ndax équipe bi joueurs yi football au niveau lañu dajel mais xalé yi nag nañ football bo xamné fool bu rafet rafet am njaay am jóob lenn rek lañ gis ne moo manqué ci fool bi mooy manqué de efficacité mooy dal ñoom ak Sappo tey mooy dal ñoom ak Israël Israël war naa fekk ñu am gën na ko ndax li am ci occasion ñaari max wante nag dañ ñaan bu wax bu wax si euh, lu jiwo jeexul muuroo jógu fa kon gannaaw senegal nag euh, coupe du monde bi am na meilleur troisième gëm nañ ne max bii di jëm bu ko dooree mën naa jël deuxième ci poule wala bu jëlul deuxième dana bokk ci quatre ñi nga xam ne ñoo gën a baax jël maire troisième mu mën a qualifier la nga xam ne mooy deuxième tour yi waaye nag kii ci di leen ko sibile war naa yokkal liggéey bu baax a baax ci gone yi efficacité ci kanam gars yi malgré gone yi du ñu kiiti kiiti gu métti ndax ku manque ku mel ne Lamine Camara mu nekk joueur boo xam day dugal day passe day ay max yu réer yi dana feeñ taxawaay wante nag nañ def ay jubbante yu ndaw ndaw gars yi mën a ñëwaat ci seen meilleur niveau yéen ñiy suivre sport amoon na baax